Welcome back to my YouTube channel Senco TV to leen English with Mr. Ba dal leen ak jàmm beneen yoon ci seen YouTube bii di Senco TV ngir jàng anglais jaaree ko ci wolof ànd ci ak Mr. Ba di leen fàttalil ba léegi rek ngeen di aimer vidéo yi dina ci am solo lool dina tax YouTube di ko jàllale en même temps di ko partager ba ñeneen ñi man see jot. vidéo bi nag wala leçon bi mooy si ñeenteelu leçon si wàllu tourisme mu nekk boo ama am solo ñu liggéeyee ko comme dialogue nga man si jàngee lu bari incha allah. ok ñu dem ci dialogue bi ah. what are you planning to do next weekend. what waaye yow sax de lan ngay waajal ci weekend bi ñëw wala ci ayu bi ayu bis mooy semaine. weekend bii ñëw lan ngay waajal sax lan nga bëgg a def I have no plan yet I have no plan yet wala I don't have anything plan for planning ah man kay waajalu ma dara I have no plan mooy parewu ma dara pour def ko I don't have anything to do amuma lenn lu may def wala I will not do anything duma def dara ok what about you what about you what about you what about you mooy wa yow nag what about you maanaam yow nag yow itam what are you planning to do lan ngay bëgg a def what about you yow nag ok what about you and what you want to do yow itam lan nga bëgg a def ok man next week I will not do anything du def dara semaine bi ñëw du def dara but waaye you I ask you dama la laaj ne what about you yow nag donc buñ la waxee dara yow itam boo bëgg a laaj ci mën nga jëfandikoo loolu what about you waaye yow nag man moom xam naa def ma dara yow nag looy waajal yow nag. I am planning to go to Gore. I am planning to go to Gore. I am planning to go to maa ngi waajal a dem gore man de loolu laa def muy sama programme I am planning to go maa ngi waaj a dem I am planning to do maa ngi waajal a def I am planning to go there maa ngi waajal a dem foofu so I'm planning to go to Gorée what are you doing there wow what are you doing there you want to go to Gorée da nga bëgg a dem Gorée yes wow but what are you doing there lan ngay defi foofu what are you doing there lan ngay defi foofu lan ngay defi foofu what do you want to do there lan nga bëgg a def foofu wala why are you going to Gorée lan moo tax ngay dem Gorée why so me I have nothing to do there but you what are you lan ngay defi foofu I am going to visit the historical places I'm going to visit historical places. Hi, Monday. damay dem seeti warab cosaan yi warab cosaan yi lay dem seeti place yi nga xam ne mooy place cosaan yi nekk Gorée mu laa bëgg a dem seeti I am going to visit my parents next week semaine bii ñëw dinaa dem seeti samay waajur samay parents wala samay mbokk am going to visit the historical places mooy damay dem pour visit seeti wara bi cosaan yi why don't you join me why don't you join me join join why don't lu tax doo ànd ak man join mooy ànd mooy fekk si bu mu ne join me in my youtube channel mooy nga fekk si ma nga ànd ak man si sama chaîne youtube ok join mi ak follow mi benn lañu topp ma wala àndal ak man ok why don't you lan moo tax yow doo nang why doon you go there lan moo tax demoo foofu why don't you accept that lan moo tax nangoo loolu so why don't you join me lan moo tax doo ànd ak man I would love I would love accompany you accompany you. Ah, accompany you. I would love I would love to accompany you, but you know, I would love to accompany you. Accompany you. ah bëggoon naa ànd ak yow bëggoon naa I would love mooy I would like bëggoon naa ko wala I liked bëggoon naa ko I would love doon na ma I would love to do that. so ma neex ma def loolu de I would love to go there with you doon ma neex ma ànd ak yow dem foofu I would love gis nga I like mooy bëgg naa wala I liked bëggoon naa comme I would like bëggoon naa ba léegi I would love to accompany you bëggoon naa lool ànd ak yow but I'm afraid of the lions but but but I'm afraid of the lion. But I am afraid of the lions. waaye dama ragal gaynde yi dama ragal gaynde yi but waaye I'm dama ragal I'm afraid to go there dama ragal gaynde yi loolu lan moo tax ma jëfandikoo li ci kaw dinga comprendre kon visite bi lan la war a nekk maanaam tourisme bi lan la war a nekk. ndax wildlife tourisme la war a nekk walla dark tourism ok dégg nga ñuy wax ay gaynde gore ñu ubbi bunt bi pour nga mën a comprendre I think you are crazy you you I think you are crazy he hmm? said the hmm? yaakaar naa yow da nga sax I think you are crazy hmm? I said gore man ma wax gore and you said the lines ngay wax ay gaynde hmm, I think you are crazy dama yaakaar ne yow tanga nga dof sax hmm? I think that mooy loolu laa yaakaar I thought that mooy loolu laa yaakaaroon ok I think I think you are crazy dama yaakaar da nga dof I think you are spread out of your mind think you don't understand I think you don't know anything hmm? xaw foog yow xamoo dara I think you are crazy dama yaakaar ne yow da hmm? nga dof yow kana xamoo ne there is no lion or elephant in Gorée well there is no lion or elephant in Gorée yow Gorée amul gaynde amul ñay You see, lions and elephants. Elephant and lion. Okay, now we know there's no lion in Gore, yes, but there are some places here in Senegal we can see lions over there. waaye am na barab yoo xam ne Sénégal mën nañ fa gis gaynde okay ñu déglu ba léegi there is no lion over there fële amul gaynde the lions are in park and known in Gore you know you don't know that you didn't know that before yow xamoo woon loolu njëkk ah, you didn't know that yow xamoo woon loolu the lines are in Parkaan but not in Gore I mean that the lines are not in Gore okay gaynde yaa ngi Barkaan nekkuñu Gore Barg Barkaan Park park your car over there you are you the driver ndax yow yaay chauffeur bi yes park your car over there sa oto bi nanga ko taxawal fële kon park I thought you know you knew it better than me I thought yaakaaroon naa ne I thought I think yaakaar naa I thought yaakaaroon naa I thought you knew it better than me you know yaakaaroon naan yaam a ko gën a xam I thought yaakaaroon naa yu niiw yow xamoon nga you knew it xamoon nga loolu better than me maanaam yaakaaroon naa yaam a ko gënoon a xam foofu sax yu know that better than me mooy yaa ma ko gën a xam baatu better bi nag bu mu ne you are better than me mooy yow yaa ma gën I am not better than you man gënuma la de waaw this one is the best one kii moom moo fi gën. we can say that my father is better than me. Goree is a famous place in Africa. You don't know Goree? Wow, I think you are not in Senegal. Hmm? You don't know Goree? Goree is a famous. bul fàtte vidéo bi amoon dembu mooy leçon bi ñu amoon démb. Ehm, bi ko njëkk bu doon wax ci famous places comme ma joxe na exemple ne Sadio Mané is a famous player wala famous football player famous boobu moo nekkaat ni maanaam lu siiw buñ ne lii dafa siiw dañ naan that's famous maanaam famous ok Gorée is a famous place yes barab Gorée de barab bu siiw la ci Afrique Gorée is a famous place in Africa Yes, all historical places are famous, especially Gori. I know, but I can't go. I know. Hmm. Yes, I know, but I can't go. I cannot go. I know. xam loolu. naa ko de. waaye mënuma dem. but I can't go mënuma dem. ok mënumaa dem ok bokkut ak duma dem de I don't go mooy duma dem I can't go mooy mënumaa dem bye bye ba ci next video